alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah abonné leen ci seen chen MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu alhamdulilah alhamdulillahi lasi jaala mutabaata awliyai falahan wa salahan wa mahabatahum wa tahsimahum wa amtisal awamir rabbahan wa najaan wa salatu wa salaam ala afdali mursali sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an qutbil maktum mawlana sa ahmad tijaan sari radiyallahu anhu eh, alqaa'il la yasribu walin wala yusqa illa min bahrina wa radiyallahu an khalifatihima mawlana sa sax islam alaaji ibrahima ñas ibnu alaaji abdullahi attijaani saahibul faydatu tijaani seyqu suyuqi wal baabul maftuuli kulli man yuridu wuluji li hadrati xushi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi santaat yàlla beneen yoon di julli ci yonent bi alayhi wa sallam gërëm Cheikh Ahmada Tidiane Chérif mi nga xam ne wax na ne kenn du naan wala nga naan di la ci sama géej ñi ngi gërëm Mawlana Seex Islaam Alaaji Ibrahima Ñas mi nga xam ne wax nañ ci xaqam ne fala aarifun illa bi baabi waaqifun uddiru asqal qawma turan bi faydati kenn du xam yàlla wala nga di ko xam leen moom it ci buntam ñi waxtaane góor yàlla gu màgg muy imaam Hassan Cissé ngi waxtaane wëli yàlla wu màgg muy imaam Hassan Cissé ñu ngi waxtaane borom baax gu nga xam ne dañoo wax ne moom la ñuy fàttali moom la ñuy fàttaliku mu génne àdduna ak léegi mu ci fukki ak ñett ñi fàttaliku koo xam ne duut ku ñuy fàtte la li tax ma ne fàttaliku koo xam ne duut ku ñuy fàtte la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne albiru laa yubla wa sanbun laa yunsa wa dayaanun laa yamutu information te kamaata dina ta daan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na albiru mbaax du ràpp maanaam mbaax kenn du ko fàtte mu ne waaye bàkkaar du dee maanaam bàkkaar duñ ko fàtte mbax du ràpp waaye bàkkaar duñ ko fàtte mu ne waaye borit du dee defal lu la neex lu la soob comme ni nga lépp li rek noonu lañ lay faye moo tax lépp li gi nga xam ne def na ko ci jaami yàlla yi moo tax dañuy fàttaliku koo xam ne duut ku ñuy fàtte ci xol yi ndax fàtte ko mooy fàtte mbaax jublu ko mooy jublu mbaax bëgg ko mooy bëgg mbaax bëgg ko mooy bëgg Cheikhu Tijaani Sarif radiyallahu anhu bëgg ko mooy bëgg Mawlana Seex Salaam Alaaji Ibrahima Ñas te Mawlana Seex Salaam Alaaji Ibrahima bëgg ko haqiqatan mooy bëgg yonent Yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam xam ne fàttaliku ko njëriñ la ndax bëgg ko njëriñ la ci ne waman yuhibu nii waman yaraani fi jannatil xuldi bila jannatil xuldi bila boxtaani is anani xalifatu tijaani mahibatan min ahmadin fàttaliku kooku walla nga bëgg ko mbëggeel ga yow lay jëriñ te kenn du gis sa njëriñ di ko bàyyi imam asan sise radiallahu anhu ñuy fàttaliku mu liggéey ci diine bi ak tariqa bi ak fayda bi liggéey ci liggéey boo xam ne kenn dootu ko laajte nga xam ne fekk na ñu bari awoon beneen yoon woo xam ne mën naa am duut yoon woo xam ne wuñ gërëm la wu diina gërëm la waaye ñu ànd ak imaam mu defar xol yi ba tey ñooñu suñ la waxoon ne ñii démb buñ la fàttali woon seen i démb da nga xam ne imaam ku mën a defar la waaye nag loolu mu ngi ko royee kan mu ngi ko royee maama Mawlana Sislam Alaaji Ibrahima Ñas ndax Baay radiyallahu anhu wax ne wa saana ilaahi nafsi dahra la ura amilu ma laysa fi sarhi jaisa man Baay Ñas du ngeen ma gis mukk diirub jamono may def lenn lu wuteeg lu sariha gërëmut imaam it mën nañu wax ne la baay waxoon moom mën nañ koo wax ne wa saana ilaahi nafsi dahra la ura amilu illa ma laysa fi srin jaayisa mën nañ wax ne moom itam fi bàyyi tegoon tànkam moom itam fa la teg tànkam te du jóge Mawlana Seex Salaam Alaaji Ibrahima Ñas bañ na ko dafa wax ne moom fépp fu mu dem bu fa amee ay minit rek fukki minit rek bu ko fa amee dañ xam ne julli la dañ xam ne tijaan la dañ xam ne taalibi Mawlana Seex Salaam Alaaji Ibrahima Ñas kooku nag li ko ko may mooy nangoo topp te xam njëriñal topp te it topp koo xam ne dafa bind na wa in qutooti lil anaami saadatan falan falan yasqa yawma man ra'aani waqatiya fa lam yasqa yawman man ra'aani waqatiya wa in qutooti samay mbind man bàyyi ñes mu ne ñeexal na mbinde fi mu nekk texe ñeexal leen su ma mbind daal amul kenn koo xam ne dana ci aw koo xam ne ku nar a taxaadi la dama wax ni ku kum rëddal boo jaree te rëdd wa nii ngay war a mel ba tax na imaam Hassan radiyallahu anhu bàyyi dafa amoon ci moom yaakaar waaye yaakaar ja bàyyi amoon ci moom yàqut yaakaar jooju ci lu bëree bëri bëri bëri ci loo xam ne def na ko ci diine ji maa ngi fàttaliku benn bis boo xam ne moom imaam Hassan Cissé dafa dem Cameroun bi ñu defee siyaara baay bi ba pare ma ñëw di ko tàggu mu ne ma nit de maa ngi leen di tàggu maag si Abdou Ndaw ñoo dem di ko tàggu mu ne man it de maa ngi leen di tàggu dama war a dem Cameroun ndax dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg dugg ci diina ji wax ne naa dem am na sax ku ma leen boolee toon waaye na man lañ bëgg ma dem te booba sëriñ bi mu ngi sonn lool sax nag ma ne ko seriñ bi tee ngaa yëpp rek te toog mu ne waaye yëpp leen naa waaye ñoom dañ ne man lañ bëgg ma dem wax nañu lu mat juróom fukki nit ñoom ñoo bëgg tub dugg ci diina ji te bàyyi daraan wax ne moom kenn nit mu nekkoon ba siin fu mu nekk bu ko wooye pour bëgg dugg ci diina ji jaral na ko dem fekk pour mu dugg ci diina ma xam ne maam maamam lay roy foofu la bàyyi waxoon ne isa saara xayru si surtout wara o wa in xalla yaman fal ngi du man de yonent bi laa topp rek saabu doxee ma dox saabu bu taxaw dootuma seqi benn jéego ña xam ne rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa moom itam foofu la togoon tànkam fi maamam tegoon tànkam rek fa la teg tànkam kera bi nga xamee ne yàlla dogal na mu dem Cameroun googu bañ toogee ba ci ëllëg sama woo ko téléphone doon ko siyaara mu ne ma ko kan la sëñ Aliou sëñ Aliou rek la ma daan wax ma ne ko waaw sëñ Aliou la mu ne ma fii nga may wooyee mu ne ah ne ma nikki démb ma ne ah mu ne ma junni nit ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn tub nañ dugg ci diine islam maanaam góorgóorlu ba jubal kenn ci mbindeef fi moo gën lépp loo xam ne jant baa yi koy tiim ci yiw ci beneen riwaaya mu ne moo gën lépp loo xam ne maanaam eh, jant baa yi tiim ci lu xonq jubal benn nit rek ci diine islam kooku fayam kenn xamu nu toll ñu xool imam Assane se ñaata doomu adama la jubal kenn xamu nu toll loolu na mu ngi ko royee kan mu ngi ko royee Mawlana Seck Islam Alaaji Ibrahima Niass bu dee ci yaatu goo xam ne yaatu na ko nga xam ne damay wax ne moom mustarikun bayna aalimu maxqulat wa aalimu maxsusat damay wax ne imaamuna taqiyun yahmuruna yahmuru naasu bi taqaa tabibun yu daawi wa salimun docteur la boo xam ne dafay faj waaye balaa muy faj ni ñi moom fekk na dafa wér ba pare doog a faje na koo xam ne yaa ngi faj fekk na ke yow miy jéem a faj yow da ngay wàll nit ñi feebar waaye faju la waaye moom dafa wér ba pare doog a faje moo tax kum faj rek da nga xam ne kii faj na la képp kum faj kañaan dana jeex ci yow parce que loolu moo ko taxoon a jóg imaam Assane képp kum faj rëy dana jeex ci yow képp kum faj it doyadi dana joge ci yow waaye képp ku faj bëgg yonent bi ak bëgg Cheikh Tidiane ak Baye Niass dana nekk ci yow loolu moom la nandal képp ko xam ne àndoon na ak moom moo tax léppam leer la ba demee benn euh, benn borom xam-xam dafa wax ne alxollamaa u salaasatun aalimun billahi xayru aalimun bi amrillah ak aalimun bi amrillah xayru aalimun billah ak aalimun billahi wa bi amrillah mu ne borom xam-xam yi ñett lañ ki nga xam ne dafa xam yàlla te xamul mbir yàlla ak xam mbir yàlla te xamul yàlla ak xam mbir yàlla ba pare xam yàlla mu ne ki nga xam ne dafa xam mbir yàlla te xamul yàlla muy ku njëkk ki mu ne kooku xat istawalat al mahrifatu l ilahiyati ala qalbihi dafa lab ci péeb yàlla bi ci xam yàlla ba nga xam ne jéemuta sax xool yeneen yi muy kenn jéemuta xool attee jéem a xam dara moom ba mu labee ci peeb yàlla bi rek la lab ci peeb yàlla bi te kooku bàyyi gàggante na ko wax boo demee ci jawaay rasaa yi bàyyi radiyallahu anhu gàggante na kooku ndax wax na ne isnayni laysa minni walla min tariqi mac soobun lam yasluk wa saalikum lam yacub wa in baqi ala alima waqafa ala sayrihima wa inni sahni kama alimtum wa man arada mahe fal yasul tariqi fil aqwali wal afaali boo demee ñaareel ba mooy kan mooy ki nga xam ne mooy dafa xam mbir yàlla ki nga xam ne moom maanaam euh, maanaam xamut xam na mbir yàlla waaye xamut yàlla mu ne kooku mooy ki nga xam ne arafa halal wal xaraam dégg nga ko wal ahkaam walakin li fi nekk na mu ne xamut asraaru jalaali nuurillah xamut nag mbootam yàlla mi yëg-yëg yooyu see boobu mu ne amu ko keneen ki nga xam ne dafa xam yàlla ba ba xam bare xam mbir yàlla moo tax yonent bi nañu sallallahu alayhi wa mu ne kooku mu ne dafa taxaw nag ci frontière mustarikun bayna alim maqulaat wa alimun mahsusaat mu ne kooku taaratan ay jamono daf fee nekk ba nga foog ne xamul sax yàlla xoolal imam asansé bu toogaan na yow ku ñëw mu waxtaan ak yow kaf yow jox la nga lekk jox la nga naan de nga ko waaye bu demee ca péeb yàlla ba nag da ngay foog ne sax moom kanaa nekku fi te loolu balaa nga koo na xam rek nga dugg ak imam asansé ci biir nekk ba mu lay waxtaanal ci yàlla ci ngay doog a xam kam mooy imam asansé si waaye nag comme dafa taxawoon ci benn frontière boo xam ne dafa ëmboon ñëpp mustarikun bayna alimi maqolat wa alimi masosat borom xel yi xalaat ak borom yëg-yëg kenn ku nekk dafa la doon nampal moo taxoon bi mu taxawee moom kenn ku nekk rek ak ni nga bëggee noonu lay nàmpale loola taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag lam ñu waxoon mooy salil ulama u moo tax yonent bi ñëw mu ne salil ulama u laajal borom xam-xam bi borom xam-xam boobu mooy ban mooy ban borom xam-xam mooy borom xam bi nga xam ne fes na dell ci xam-xamu zahir waaye nag xamut xam-xamu baatin xamut xam-xamu xaqiqa mu ne kooku yaa ko moom laajal ndax kooku làmp la rek sondeel la rek moom mu ngi ñiital nit ñi waaye moom mu ngi lakk boppam mu ne borom ñaareelu xam-xam bi nga xam ne moom xam na mbir yàlla waaye xamul mbir yàlla yi kooku mooy maj sóob bi kooku mu ne moom dal jaxasoo moom dal jaxasoo ak moom la wax de waxun nga dëkk ak moom jaxasoo ak moom rek waaye kan la wax na nga toogaale ak moom wa jaalisul kubaraawu mooy ki nga xam ne mustarikun bayna alim maqoolaas maqoolaat mooy ki nga xam ne nag dafa xam yàlla ba pare xam mbir yàlla imam Assane Cissé nag fii la nekkoon xam yàlla xam mbir yàlla moo tax ku ñëw rek mu mën a ànd ak yow ni mu daan jëflante ak nit ñi al muslimu aqul muslim julli julli muy mbokkam bu dee ci yar ci daara maanaam pour jàngale gis ngeen école bi nga xam ne moom la andi américains yi di ci jàng maanaam fu nekk rek ci adduna bi nit jóge na di jàngee foofu mooy école bi nga xam ne fa la américain njëkk a tëree alquranu karim te maamam Mawlana Seydil Islam Alaaji Ibrahima Niass lan la doon puugaree woo ba nit di ñaan karaama kenn ku ci nekk di ñaan sa karaama ak na nga ko ñaanee bàyyi ba mooy ñaan karaama lam ñaanoon fal taj an na yëf sa kitaabi ka karimi karamati illa liqa il moom itam mu hubbi daara joo xam ne dafay jàngale alquran nit ñi di ci mokkal alquran da ci am xam-xam ba bàyyi waxee ne bind téere bu ñuy wax tafsiratul anam fi anna al ilma huwa al maa ngi wan alam bi ne xam mooy njiit la andi moom itam daara jooju andi boromi xam-xam ñiy jàngale xam-xam ca daara jooju ba ku fa génne rek da nga xam dégg nga ba nga xamee ne Mawlana Seex Salaam Alaaji Ibrahima Ñas jógee ne fii dam dafa ju ji ba London mu xam ne lii yitte rek moo koy maye moom itam fexe na ba xam ne doomu aadama yi dara ëppul doomu aadama tabax doomu aadama moo gën a jafe defer doomu aadama moo gën a jafe mu fexe ba andi maanaam hôpital boo xam ne daf ko teg ngir jaami yàlla yi di ci fajoo te doomu adama amul lu ëpp doomu aadama jàkk ji li mooy li mooy li mooy for for for for doomu aadama ko gën a for moo tax li ko gënoon a yitteel mooy nit ki na xam ba yeewu parce que boo xamee rek bàyyi radiyallahu anhu moo daan wax ne mu ne jàng leen ndax ngeen def nit ñi ñii nit ndax boo jàngul rek nit ki dana wane loo xam ne da nga naan kii nit loolu sax xam-xam mooy lan kii duwul nit kon moom yéena nit ñi ci xam-xam dimbale nit ñi pour ñi faju dimbale na nit ñi maanaam pour ñi xam lan mooy seen dina te loolu ñëpp xam nañ ko maa ngi fàttali ko benn bis te ku ku bëggoon lim nekk la te dëggu ci bi ma koy e, tàggu e, mu bi may yeewi mu ngi naan ma benn bis dégg nga ci jàng ci jumaa ji maa ngi naan am na ñoo xam ne ñoom dañ ne wax ne àgg nañ ci yàlla woo waaye ñoom duñ julli mu ne waxuma ne àgg nañ ci waxuma ne àgg nañ ci yàlla waaye ci safara lañ yegg loola isaara la woon moo tax kum yar rek da nga xam ne kii kuñ yar la eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram barkeel njabootam ci barke yonent yàlla Muhammad fàttaliku koo xam ne wax naa ne kuñ du fàtte la eh, jamono ji nag eh, lu jafe la waaye xamul dara loo xam ne maanaam imam Assane Cissé da nga ko ci dox tey muy murid ba muy xaadir bi muy tijaan bi muy layen bi te xamul ni koo xam ne jëflante wut ak yow ci mbaax goo xam ne boo wéetee rek maa ngi dajeeg benn waaye boo xam ne ñu ngi koy wax euh, layti lañ koy wax man layti mu imam laa koy wax te taalibe bi sëriñ Fàllu Mbàkke la mu ne ma dama am juróom-ñaari photo yi sëñ Fàllu bi ma amee permis taf ko ci permis bi ñëw ci imam Assane Cissé na ko ñaanal ma mu ne mu xool photo na ko jërëjëf mu ne mu ne ma li ma yor ci oto ki ne kenn xamu nu toll mu ne génnee àdduna ma dellu demaat ba ci xabrum ba parce que booba am na ay américains yu fii ñëw soxla nañ ko xam ne dafay dëgg anglais pour di mën a jaar diggante ak nit ñi di leen di leen def intermédiaire ci diggante moom ak nit ñi mu ne ñi ko doon soxla bëri lool mu ne ma ñëw ba ci xabru imam Assane Cissé bi ma ne ko ba ngay dund de ñëwoon naa nga ñaan ñaan la nga ñaanal ma ma am permis permis bi am ko ba am naa ay oto fa saatu boo xam ne ci anglais su ma demee bu ma kàddoo duñ jël kenn man la ñuy jël mu ne ba ma defee loolu ba ma demee bi ma kàddoo ñëpp dañ tànn mbooloo mu la may bëri bëri mu ma lañ tànn te kooko taalibe sañ fàllu la taalibe sañ fàllu la oto bu mu maroon bu mu maroon pour andil ma ko Dakar bañ ko feeñoon na ko kii de muqaddama imam Assane Cissé la borom oto bi juróom benn juróomi junne la doon laaj ci oto bi waaye daf maa wax na ma joxe naa ko hadiya imam Assane Cissé bon kooku dama na la mbaaxam kenn xamumu toll daraan jëflanteeg nit ñi comme nan al muslimu aqul muslim julli julli mbokkam waaye daan na jëflanteeg nit ñi nag di nga al muhminu lil muhmini kal bunyaan yasudu ba'du wa ba'dan moom fu mu toll rek mu ngi xool loo xam ne maanaam luy dugaral diina a la ak luy benn lee maanaam julli ñi la te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne aljamaatu rahma wal farqatu asab àndoo gi nga nay àndoo loolu yërmande la booloo gi nga nay booloo yërmande la tàqaloo gi nga xam ne moom nga nay ko loolu maanaam mbugal la ñaxal leen tànk yooyu nag moom la awoon ta tànk yooyu mu ngi ko rawee mu ngi ko royee kan Mawlana Cheikh salaam Alaaji Ibrahima Niass moo tax daan na jox nit ñi tariqa tiijaan daan na tarbiye nit ñi da leen àggale ci yàlla daan na dagg ay lijaasa di ko jox ñi nga xam ne dañ koo xeeyoo daan na tuubal jaami yàlla yi yaakaar naa ne lim def ci diine ji kenn du ko fàtte bëri na ku dund téeméeri at moom mu dund juróom benn fukki at ak ñett waaye lim liggéey ci diine ji da jis gis ku dund téeméeri at wallahi doo du liggéey liggéey bu mel ni liggéey bi nga xam ne moom la imam Assane Cissé liggéey ak yëg goo xam ne moom la yëgoon doomu aadama imam Assane Cissé xeebutoon kenn ndax moom li mu daan jëflante doomu aadama yi inna akramakum inda la atqaakum li mu daan jëflanteeg euh, euh, doomu aadama yi ba tey it wala xadd karam naa bani aadama wa amal naam fil bari wal bahri wa rasaqnaa min at-tayyibaati wa faddalnaa alaa kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilaa imaam loo loo loo euh, doy doy waar bu ñëwee dana la jël teg la ci kaw xoolal man mu ñàkk solo mii rek suñ am jataay amaan su ma ñëwee taxaw fële da nga dana la jox aajo joo xam ne boo génn ñëpp lay dar di la jox loxo ngir aajo ji nga xam ne moom lay may loolu baax la parce que ku amul mbaax doo joxe mbaax que xolam moo sell opéré boobu nga xam ne yonent bi sallallahu moom lañ ko opéré woon nga xam ne gannaaw bu ñu op bu yonent bi opéré paaka bañ doon opéré Mawlana Sislaam mooy ki nga xam ne moo ko doon to ku xam yàlla rek xam nga daan mooy opéré boobu opération boobu man imaam Asan Si yàlla da ko ñu joxoon cër bu lëw moom la ko ci yàlla joxoon nga xam ne Baye radiyallahu anhu nga xam ne Baye wax na wax na radiyallahu anhu wax na ne waskur rabban alham alhamdu rusudahu fa asxaru mina shirki mu ne maa ngi sant yàlla man Baye Niass ndax sama mbóor jëmbel eh, maanaam jërmelut ndax ki gën a tuuti ci sama topp am na maanaam fan dëñ na ci bokkaale te yàlla du mbugal kenn wax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha la yaxfiru an yushrika bihi waaye nag wa yaxfiru ma doona salika liman yasa man yàlla danaa jéggale léeg laa yaxfiru an yushrika bihi danaa jéggal du ma jéggale bokkaale du ma ko jéggale waaye dana jéggale nag maanaam lépp gannaaw ko jéggaay bokkaale mënu ma koy jéggale bunt boobu nag nga xam ne ci la bàyyi jaaroon pour dindi nit ñi daggal leen seen kiraay bunt boobu imaam Asan liggéey bu rëy rëy rëy la ci liggéey ndax ñin ñii di wax ak yow fam ñi fekkoon ñi muñ ko sax nettali ndax ñin li ñuy boole ak imaam Asan Si radiyallahu anhu wax naa ne fii ci Unité 24 fi la ma bi sallallahu alayhi wa feeñu ba ma jóg ba jóg ba bëgg a jóg bàyyi ñu tey ci sama loxoom ndeyjoor bi ne ma kii moo yonent bi ñetti yoon la ma boole ak man imam Assane Cissé mooy lan mooy ne kii mooy sa sëriñ kii mooy sa sëriñ ñetti yoon ma jógee fii lu man ñetti yoon ñaari yoon dem naa ko Medina Baye ñetti yoon bi ci laa doog a gis imam Assane Cissé te wax naa ne jënd naa juróom ñett fukki photo yi Baye ma bëggee jaay wecc benn maanaam wecc nañ ma juróom-ñett ndax photo Baye kenn mënu ko jënd waaye wecc nañ ma juróom-ñett fukki photo yi Baye wala lu ko jege ñi dama wecc benn photo imam Assane Cissé man leen kii xaw ma ko ndekete woo keroog bi ma gént sama gént gi moom lañ ma booleen na ma kii kon wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax eh, li duuf ci nag wi xaju ci cin li ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal suñu xalifa Cheikh Mahi Ibrahim Niass ñaan yàlla guddal fanam tamay ko wér nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi liggéey liggéey boo xam ne bu réeréer la eh, di ko def ci taalib yi di ko yéexee doomu aadama yi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam te yàggal ko fi waaye ñu ngi ñaanal eh, imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé imaamul akbar ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam fan wu gudd lool waxand ak wér parce que moom itam taxawaayam masa allah yala na yàlla gën koo dëgëral ci saayir ak ci batin de dañ koy ndamoo moom fu ñu mën a toll ndax eh, waxtaan bi mu defoon fii ci suñu gàmmu gi tey mboolem sit yi néew na tey fooy dugg te du ne ñu ngi koy teg di ko dagg di ko teg nga xam ne lépp moom Mawlana si salaam laaj Ibrahima Niass la ñu ngi koy ñaan yàlla mooy itam fan wu gudd waxande ak waaye ñu ngi ñaanal euh, Cheikh Mahi porte-parole Medina Mawlana si salaam laaj Ibrahima Niass moom itam ci taxawaayam bu rafet yàlla yàlla gën koo dëgëral gën koo kàttanal defal ko mboolem njabootu Mawlana si salaam laaj Ibrahima Niass euh, ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.